koo xamante nii rek yaa ngi dëkk ci biir réew mi nekk ci biir réew mi di nuyu kull koo xamante ne yaa ngi ci diaspora bi nekk fi yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen yóbbante nag sunu njaal ci ki nga xamante ni ci askan bi li nga xam lépp ñoo ko bokk ci biir askan bi ko baax di doomu nit ko baax ñu baax ñu ko mu judd nag nuru leen ci lool ci la yaru ci la màgg dundam yëpp ci loolu la ko def ñu kontaan nag ñun taalibe yi ci moom Pape Malick seede bi ma koy euh, seede mooy daa naa dégg sama papa di wax ndaxte sama papa ku daa wax daawur jaxate la mu ngi yaroo ci biir kër sëñ Babacar si moom daa daanaan wax ni Pape Malick ki nga xamante ni moom mi nga xamante ni moo doon loxoom ndajooru Serigne Babacar si nga xamante ni mooy ki nga xamante ni mën naa ni ci doom yi nga xamante ni moom la baaba kër si jur mooy ki nga xamante ni moom la ci Serigne kër si gënoon a bëgg daanaa dégg ñu daan wax naan amoon na janax ju ndaw joo xamante ni daana ko yore di ko fowe waaye keroog ba janax ji génnee àdduna Pape Malick dafa taxaw di ko jooy jooy yoo xamante ni daanaa ko dégg sam papa di ko wax ba sëriñ Babacar si di ko ko daan dëfale kon boog donc nekk na koo xamante ni ñun ñàkk nanu xanaa am naqar rek am naqare ak ak bett ak jooy rek lu daf ñoo bett torop torop wax dëgg yàlla ñun ñëpp amee naqar ñun ñëpp amee naqar metti na waaye lépp dañ koy delloo ci loxo ki nga xamante ni mooy borom bi wat euh, borom bi nga xamante ni moo ñu sàkk binduñu da nga xamante ni mooy ki nga xamante ni moo ñu booleeg Seydina Mouhamed boole ñoog Seydina Mouhamed nag yëkkati jox ñu ay kilifa yoo xamante ni ñoo ñu war a teg ci réew mi tamit muy suñuy sëriñ kii ñun adduna bi moo ñàkk. adduna bi moo ñàkk duma ni Sénégal moo ñàkk duma ni Tivaouane moo ñàkk waaye dama naan adduna bi moom moo ñàkk. moom daal liñ ci mën a yëg rek mooy dañuy delloo suñu bopp ci yàlla rek. lépp lu mu fi doon def ci yiw yàlla nag ko fekk ci bàmmeel ci barke yonent bi lool rek. daf ñoo bett xanaa di ko ñaanal yal na yàlla xaree ko àjjana rek suuf ayof si kawam waaw. ku baax la nag boo xamante ni foo ko fekk même ba ci lii ci feebar bii nga xamante ni nekk na fi te muy laaw ci dëkk bi amut lu mu ci waxut amut lu mu ci daawut woon wax. di daan ñaanal nit ñi di leen ñaanal waaye nag ñoom itam ñu ngi koy delloo ñaan gi di ko ñaanal ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. bi Pape Diakhaté la. Tiwaawan laa juddoo Tiwaawan laa yaroo waaye Tëngéej laa nekk bi ma ko yëgee rek automatiquement damaa daal di daw si ñëw